ñooñu sa leel rien du ñu dara ay nit ñoo xam ne nii seen i bopp rek lañ fa nekkal di di di di di di màcci deretu nit ñi loolu lañ nekk assemblée man daal lii ma gëm mooy li euh, asalaamaaleykum mbokku internet seeni TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax tey nag euh, dañuy waxtaan ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci assemblée nationale ndax gis nañ ni le président de la république euh, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye nous bu mu santé ñi nga député yi pour ñu wax ci li jëm ci tas euh, conseil économique social et environnemental ak li nga xam ne euh, au conseil de collectivité territoriale nous ko jël na décret dàqal ñaari président yi nga xam à savoir ki nga xam ne nag moom mooy Aminata Mbengue Ndiaye mbokku ci parti socialiste ak ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo bokk ci APR. lan nga xalaat ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci loi yi nga xam ne nag euh, may na président de la république pour mu tas assemblée nationale. waaw li ma ci xalaat mooy maanaam euh, actuellement nii comme y a au niveau de l'État muy euh, son excellence Diomaye ak gouvernement pour ñoom ñi def. politique bo xamni dina jaar yoon askan bi mu ci gissal bop il faut ñu dissoudre assemblée parce que ñoo gouverner sans ñu am majorité xam nga loolu lu yag la fi Sénégal président bu fi mos a pour mu mëna gouverner il faut mu am euh, ki assemblée il faut mu dissoudre assemblée am fa majorité comme ça projet de loi yi nga xamné ni ñom ñom lañuy euh lancer pour mëna liggéey réew mi ñu mun ko adopter parce que sans la majorité mënu ñoo gouverner. je pour nous comme ça comme ça comme nous comme au moins mener politique comme ça doit parce que nous ils ont un compte à rendre au au peuple dafa am lu ñu gëm l'eau nous ñu nous heure bu li nga xamné ni mom mo fi nekk né ñu fi nekk askan lañ fi nekkal dañu kon donc fu ni ne amul lenn loo xam ne nii war nañ mën a noonu non c'est-à-dire lii la woon assemblée lii la woon moo taxoon defuñu ba defuñ lii ñoom nañ fexe di dissoudre assemblée bi ñu dem élection bu ñu demee ba am majorité nag ci assemblée bi dinañ seego ñun xam ne nag ñii actuellement ni ils ont toutes les personnalités est-ce que dinañ war a mën a doxal wala déet ñun foofu la leen di xaar. man li ma si gis mooy assemblée nationale euh, man daal li ma gis affaire bi mooy affaire politique la daal politique politicien la muy si côté pouvoir bi muy si côté député opposition bi parce que ku si nekk sa côté ngay xëcc premièrement euh, ki nga xam ne premier ministre bi déclaration politique am bi nga xam ne war na ko def moom bañ ko falee man li ma gis président yi député yi fi gum premier ministre ñu fi mas fal bu la falee ah Abdoulaye Wade bi mu ñëw na majorité assemblée nationale mais terewul premier ministre am ba mu ko falee dafa dem dafa dem déclaration politique am délégué général am n'est-ce pas dafa déclaration politique boo demee parce que Sénégal yi fa ña fa nekk ay Sénégalais boobu yóbbu loo xam ne jaadu na mais dañ koy voté parce que ñemu nga yóbbu loo xam ne intérêt Sénégal la ñu di ko ñu duñ ko voté loolu amu fenn mais demal ba xam yow lu yow dama ko nga bëgg a wax ne ni ki lii may def lii may def wala dama woteel damay bëgg a daaneel te yow demaguloo mais na dem boo xam foofu lan moo fay nekk li nga xam ne mooy lu ko yoon may mooy bu ko yoon may mu duñ ko falee dafa war a dem def déclaration de politique am su ko defee boobaa yeewi Sénégalais yi yeewi euh, gouvernement bi su ko defee su boobaa mooy war a bailleur de fonds yi nga xam ne ñoo yore seen xaalis bëgg a financé seen dëkk lépp a teg ne teg ñu ngi toog di ko xaar kenn mënut def sa xaalis kenn mënut a dugal fenn benn bailleur mënut a dugal xaalisam que balaa ngaa dugal xam fi nga koy dugal te loolu lim nag balaa nga ko mu dugal fale moom mu def déclaration politique ñu xam gouvernement bi lan lay tëral ak fan lay teg tànkam ñoom ñu mën a lu mën investir mais bo gisee fi ne lépp taxaw kenn investir ñi war investir yëpp ngi taxaw di dem depuis ay combien de mois bañ falo ba léegi lolu tardement lay am te loolu arrangé wu Sénégalais yi. assemblée nationale bi koku mom moy première chose bi président de la république wara def tas assemblée bi parce que assemblée bi du assemblée. assemblée bi mom moy assemblée bi gën a ba Sénégal nekkee Sénégal ba légui assemblée bi mom moy assemblée bi gën a président li day maslak député yi rek. mais date bi su jotee ñun citoyen yi li ñu koy ñaan ñun dañ ko voteel 54 pour cent lañ ko falee Sénégal loo xam ne mosuñ ko histoire Sénégal mosuñ ko votelee benn président premier tour mu jàll parce que sénégalais suñu meree ba votel ko 54 pour cent parce que dañoo bëgg lépp lu fi Macky Sall def yaa ngi dégg su mu desu dur ko dindi ko ay conseil économique social ay haut conseil yooyu yëpp amalul Sénégal benn njëriñ yow da ngaa mës a xam lan mooy économie sociale nag leen mës a gis si dara lan nga leen mës a gis ay nit yoo xam ne dañuy jël alalu Sénégal di leen fay yaa ngi dégg te amul amaluñ njëriñ benn njëriñ réew mi loolu na ko desudur moom moo ko waxoon moom moo ko waxoon na ko def Macky Sall bi mu toogee Sénat fii la ko fekkoon Abdoulaye waat def ko fi da ko tas dafa tas Sénat te Abdoulaye Wade moo ko fi defoon dafa tas assemblée bi 2012 ba mu fi ñëwee yooyu yëpp da ko tas président ku ko ku ko woteel ba mu gañe da ngay fexe dooleel ko dooleel ko mooy nga fexe mu am assemblée nationale mu moom ko moom ay député majorité bu doy mais képp ku ku ku mën a diriger réew te euh, euh, perte ko rek mooy yow toujours mën nga nekk point faible. léegi nag ñun askan bi nga xam ne ñoo faloon Bassirou Diakhar Diomaye Faye nañu fexe ba jox ko assemblée bi majorité majorité bu doy mu mën doxal lim ñu digoon. parce que lim ñu digoon wax dëgg yàlla euh, ba ba tax ñu woteel ko mais bu gagné wul assemblée bi mais ay noonu mën nañ mën nañu ko yàqal léegi nag. Euh, comme dugal na ay loi ñu résister ko ñu bañ ko ñi nga xam ne dañu contre ñu bañ ko te loolu mu dugal mooy lan nu ñu fexe ba économique bi gën a am doole fexe ba yàq gi deñ loolu pour man ñun askan bi ñoo ko war a xeex ñoo ko war a bañ loolu mu bëgg dañ ko ko war a bëggale donc kon li may li ci sama gis-gis mooy na def li ko yoon may moom président de la république na na tas ensemble ñu dem élection ñu jox ko lu ëpp liñ ko joxoon mu doxal parce que bu buñ ko ko xañee rek mooy mooy nañ ko doole te xëy na liggéey bi mu bëggoon du ko mën ñun ñi ko woteeloon nañ ko dooleel na tas assemblée national ñu tëgg élection ñu woteel ko jox ko 70 pour cent mu mu mu doxal li lim ñu digoon mu defal ñu ko. assemblée nationale bi maanaam il faut li gars yi décider mooy yoon nan ko tas le 12 nan ko tas ndaxte buñ ko tasul gars yi duñ liggéey te ñun dañ leen a fal. fal giñ leen fal nag dañ leen a war a jox liñ leen joxoon taxawaat fi ñu taxaw sànniwaat leen kart ñu gañe assemblée bi ñu mën a liggéey waaw ñu mën a liggéey ndaxte tamit li fi amoon li fi amoon vraiment ñun fekke nañ lépp fekk nañ lépp waaw li fi amoon fekk nañ lépp làq doom xaw ma nu ko def di waxati làq doom dóor dóor doom moom moo fi amoon moo doon gouvernement Macky Sall Macky Sall da doon làq doom dóor dóor doomi jàmbur. ni ñoom ni ñu def ni ñu fexe mu mën a def mooy ñu bàyyi leen ñu jéem a xool naka lañ andi lan lañ andi man foofu lay kiiyee quoi te loolu pour ñu am ko il faut ñu am majorité assemblée bu ñu am majorité amul benn projet de boo xam ne dafa jaan ngay jàll ko seulement bi ñoom c'est la parce que ñoom ñoo yor ñoo yor majorité bi foofu ñoom ay ay ay opposants lañ ñoom dañuy def tout ñoom it pour bañ a ñee contre ñële mais ñii nag ñoom ñoo war a xam ne comme ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo ñu rendre mais pas ñeneen ñi waa POSA ñun ñii ñoo ñu rendre waaw mooy la nouvelle équipe qui est venue ñoom ñooy def résultat pour ñun au moins ñu gis suñu bopp si li xam ne ni moom lañ liggéey léegi nag ñoom nañ war a bàyyi politique bi fële jublu si liggéey bi liggéey bi mooy lan ñu fexe ñu dissoudre assemblée haute majorité assemblée buñ ko amee man daal si laa lay mën a juger quoi parce que boo amul benn projet de loi boo xam ne dina ñëw ngay contrarier ko parce que bu moom moom moom contrat bu ñëw day jàll léegi nag dañuy xool ba xam nag ñii est que ñëw ñoom ils sont déterminés wala ñoom pare woon nañ pour liggéey Sénégal wala déet. tas assemblée nationale bi man gisuma ne ànduma si parce que li tax ànduma si mooy tardement la parce que boo ko tasee léegi yow fi ne boo ko tasee da ngay koy da nga koy defaat rek danga koy faraat doo ko fi tase dem doo ko fi dindi kon da indiwaat mais vote boobu ñuy def noon lan la xaalis lay doon pertement la pertement lay doon parce loolu noonu xaalis boo xam ne loolu bu baax. xëy na si réew mi dëgg mais loolu balaa caag ñu bàyyi fa assemblée bi ñu xool mu dem def euh, parce que loolu lépp pour moom déclaration de politique moo tax moom ñu bëgg a tas loolu. xëy na bu ñu ko tasee foog nañ ne bu ñu ko tasee bon bu am majorité moo tax ñu bëgg ko tas ñoom loolu la man loolu laa gis. te majorité boobu est-ce que ñoom bu ñu ko tasee est-ce que bu ñu élection est-ce que bu ñu am majorité boobu parce que Sénégal tamit saa waay nekkuñ fi pour pour ñoom di leen far rek de nit ki mën na laa far présidentielle ba pare. nga ñëw du député du la fal du la wooteel député député ak présidentiel ça fait deux ak mairie ça bu nekk dafa am ay mbiram mairie dafa am cërëm vote maire dafa am cërëm vote présidentiel dafa am cërëm vote maire am cërëm vote député am cërëm nit nag mën na laa wooteel présidentiel ba pare député mu ñëw du la wooteel. man bul ma wax sax ay député danga nga naan ay walaakaana yi nekk assemblée nationale nga baal ma si kàddu gi ñooñu duñu ay député yaa ngi dégg parce que amul dara loo xam ne lii. sénégalais yi mës nañ mës nañ see nekk di ci xeex ñu génn jàppale ci sénégalais yi ñooñu duñ ay député représenté wuñ Sénégal ci dara seen bopp rek lañ fa nekkal ay Abdou Mbow ak ñooñu ngay wax ñooñu sa neel rien ñu dara ay nit ñoo xam ne nii seen i bopp rek lañ fa nekkal di di di di di di màcc deretu nit ñi loolu lañ nekkee assemblée man daal li ma gëm mooy li ma lax rek laa lay wax rek Sonko ak Diomaye dañ leen a fal 54 pour cent sénégalais dofuñu liñ leen tax ñu fal leen mooy li fi Macky Sall def ñu dindi ko nañ dindi lépp nañ dindi assemblée nañ dindi ACC nañ dindi li Aminata Mbengue Ndiaye jiite lépp nañ ko dindi conseil économique social waaw. bu mu bu Sonko dem assemblée tey bu mu fa dem suba nañ tas assemblée bi voté waat yaa ngi dégg ñu jël ay vrai député nit yoo xam ne nii am nañ xam-xam am nañ technique Sénégal moo lañ ñor ñu teg leen foofu mu soog a dem jàkkaarloog ñoom. ñun li ñuy ñaan yàlla mooy man daal li li nga xam ne man moom laay ñaan te ñu def ko nu mu gën a gaawee président de la république na def li ko yoon may na tas assemblée nationale. si yaa ngi déglu organiser élection ñu woteel ko lu ëpp doole liñ ko joxoon mu doxal nag lim ñu digoon bu boobaa nag suñu demee ba mu wóor na ñun ne day làmbatu wala lim ñu waxoon defu ko nag a ah, fit bi ñu yoroon ak ak ak ak ak suñu carte yi ñu yor mi ngi ci ñun ba léegi mais dañoo am yaakaar ci ñoom ñoom yaakaar ci ñoom li ñu waxoon dañ koo gëm te dañ koy dañ koy doxee ba bañ leen di jox ensemble majorité bu doy toog nag déglu leen ñu doxal te gëm xam naa ne billahi wallahi am na ñu senegal Sénégal tukki ji dinañ ñibbisiwaat fii ci réew mi liggéey seen réew Sénégal fen du moom. ensemble bi nag ña fa nekk nan xam li leen fa teg pour pour euh, soxlay nit ñi moo leen fa teg mais ay xuloo ay jàppal nii jàppal nii tegu leen ku nekk na xam loolu bu ñu ba jox la député député dafa garaaw de mais ñu bari xamuñu ko député gox bii dafa manqué dara nga kaasal leen yow nga dem fa. naa damaa mën a fecc ak damaa mën a way damaa mën a taasoog yooyu kooku kooku ban député ban saaru député la war a nekk yow képp man daal li ma fi may jeexal mooy képp ku dof doflu di wax loo xam ne teggunuwul wala ngay wax loo xamante ni wax jooju ko ko dégg jéppi la Sénégal yi dañ lay jéppi te Sénégal yi léegi danoo yeewu de di leen koromp ci ay xaalis kenn mënatu ko dañuy lekk sa xaalis ba pare woote i ñëw ñu wooteel ku leen neex na ñuy def yoon dëkk bi nit ñi danoo yeewu kenn mënatu ñëw naa ñii sama mbooloo la nag sama def nii gars yi dañuy ànd ak yow rek da ngay nit ñu bari ñu yaakaar yow lan àndal ñu lekk li nga leen jox lépp bu woote ñëwee bu demee ba ca mbañ kaajo ba ñu xool leen neex ñu wooteel ko comme ni ñoom ni ñu ko waxee nag mooy Sonko dafa ragal jàkkaarloo ak ñoom ci motion de censure jàpp nga ni Sonko daal ki nga xam ne dina ragal jàkkaarloo ak assemblée nationale waaw yow xam nga Sonko mi jàkkaarloo Macky Sall ñoom wax yooyu waxi kasaw kasaw la Sonko mi faalewul Macky Sall di jàkkaarloo moom police ak gendarmerie léppam ak tribunalam kooku ay député yi xojo xojo yi faalewu leen yaa ngi dégg assemblée si boppam lay tas apas assemblée si boppam lay tas ba pare ñu fol bëri député yaa ngi dégg soog a dem def déclaration euh, politique générale am waaw man daal loolu laa koy digal man